jaa ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média jaajëfal leen ci euh, wéy géeg desendeeg programme yu télévision Futur Média soir d'info comme ni ñu koy defee ànd ceeg rédaction bu télévision Futur Média ngoon gu ne ci bu 19h jotee ñu woo borom xam-xam wala kenn koo xamante yëngatu ci benn domaine ñu ñëw waxtaanee actualité fi réew mi toll. tey jii nag ñu waxtaan ñu dalal kii di docteur Gnima Goudiaby nekk euh, député fële ci assemblée nationale premier vice président conseil départemental bu. Bignona nekk euh, pharmacienne koo xamante ni ku xam-xamam màcc ci wàllu wér yaram la euh, docteur ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di rafetlu bu baax teewaay bi tey jii ci soir d'info ànd ceeg téléspectateurs yu télévision Futurs Médias euh, vraiment maa leen di remercier yéen ñëpp mhm. di remercier aussi di nuyu à travers seen seen plateforme mhm. donc tous les spectateurs yu télé Futurs Médias di wax ne aussi je me présente également comme présidente du réseau parlementaire mhm. pour la promotion du secteur privé national. loolu am na solo voilà loolu am na solo nga jógee fële ca eh, Kafountine eh, boori boori casamas Euh, foofu tamit euh, xam nga ni fan yii yëpp ay euh, jafe-jafe ña nga fa ci mbirum jigéen ñeeg violence yi nga xam ne ñu ngi koy dund rawatina ci fan yii rek am na ab actualité boo xamante ni ñun ñëpp gis nañ ko ci koo xamante ni moo fa nekkoon di mën nañu wax agressé jigéen ñi loolu nag juróon ab marché sax génn woo ñi nga xamante ni ñooy autorités yi ngir ñu gën a mën a sàng kaara kaaraange jigéen ñi loolu taxawaay bi yëf yi fan la toll ak i tamit waa Kafountine nan la ñuy dundee fi mu ne nii jamono ji nga xamante mooy agression yi bari woon na fa fan yi voilà en tant que député du, du département de Bignona. Mhm. Kafountine def na loo xamee ne lu ma soxal torop lu ma ñor. Mhm. parce que Kafountine c'est le poumon économique du département de Bignona. Mhm. également de la région de Ziguinchor. parce que Kafountine boo ko seetloo on l'année dernière on a recensé mille Mmh. et à ce niveau-là il y avait 3120 pêcheurs à 3150 pêcheurs. Mm-hmm. loolu waxoon naa ko ci ci temps yi mu ma koy wax à l'Assemblée devant mm-hmm. le ministre Antoine Diome. Mm-hmm. ma ne ko man la ma gis ca Kafountine vraiment loolu euh, tey na xel. parce que je vois tous les pêcheurs de la sous-région doo xeet yëpp a jaxasoo foofu. donc il faudrait vraiment un contrôle ñu xam kan mooy kan. kan moo dugg si Kafountine. Mhm. ça je l'ai averti en son temps. doguma la mais fan yi démb. maa ngi gis ni euh, suñu reporter yi def nañ ko maire dëkk ba commencé na nañu il faut ñu segg nit ñi fay dugg si comme ni nga ko waxee léegi maanaam booy dugg si ci dëkk bi ñu yor nga yor sa pièce d'identité ngir ñu mën a identifier qui est qui et qui voilà en son temps ba mu ko waxee ñu ne ma base navale bu bu Elinkine mooy chargé loolu ma leen base navale dafa sori ak population yi. Mm-hmm. donc il faudrait ngeen yokk kaaraange bi au niveau de la population. Mm-hmm. donc boo seetloo Kafountine comme je l'ai Mbour ñëw en campagne de peche la baax te boo seetloo on fait cinquante mille tonnes. de pêche par an. te 60 pour cent ji nga xam ne exportation pélagique yi Kafountine lay jógee. donc Kafountine tey dans le nu mu tëdd la politique gouvernementale. dafa war a am importance bu rëy. muy sécurité. sécurité bi bokk na ci. mais loolu seet nañ ne loolu amut. loolu amut parce que insécurité bi lan moo ko indi. mooy déjà loolu. manque de contrôle mm-hmm. également le quai kenn organisé wu ko mm-hmm. quai bi moom boo fa demee maara détail kenn xamul lu mu doon mm-hmm. c'est inorganisé ba pare y des établissements yoo xam ne dañuy nëbbatu di servir de campement yooyu tamit sans contrôle donc lu demee noonu kenn contrôlé wu kenn donc loolu la si lié à l'insécurité en plus de cela am na ay quartiers yoo xam ne am ñu éclairage fu amul éclairage insécurité day day day day daal di yóbbu man mois de de de juin bi rek daal di dem Kafountine quand je vais à Bignona damay dem Kafountine am ay ay bërëb dans le département dama fay teg sama tànk en tant que député xool lan moo fa nekk saytu am seen seen bébét yoo xam ne dama koy continuer di ko yor di ko di ko di ko mais élus locaux yi nekkee foofu nag mairie yeeg yu ni mel yi nga xam ne ña nga fa ñoom it seen comme yi nga wax lamp yeeg Euh, lumière yeeg yu ni mel yooyu xam naa ne ñoom seen rôle la mairie yi pour ñu mën ko gën a mën a. waaw parce que extension moo te xam nga ñun à l'assemblée on est à un boo xam ne peut-être que les ministres peuvent nous entendre. Mhm. mën nañu dégg. Mhm. voilà ñoom dinañ def seen rôle mais ñun tam quand on va à l'assemblée on on porte les plaidoyers. Mhm. voilà en tant que aussi comme li ma la ko waxee député la. mais vice-présidente du conseil départemental de Bignona la donc am na yoo xamante ni dama koy topp. di ko saytu di di seet nan lay demee. donc pour dire insécurité bi c'est manque lié vraiment au manque de contrôle à tous les niveaux. Niveau. à am, tous les niveaux. am na solo sànq yaa am na solo à tous les niveaux. Ah, insécurité boobu nag euh, ñu ci ëpp ñu ci ñu mu dal ci seen kaw muy jigéen ñi. jigéen ñi agression yi man ba ma fa demee wax nañ ma ko nee nañ ma chaque nuit que passe dañuy dégg yu bëri ci biir euh, nu mu tëddi. gox bi bëri na treize treize femmes. Mhm. dont une nga xamee ni moo moo moo ci gaañu. moo ci perdre ba kanam. Mhm. Ah. donc may wax ne aujourd'hui vraiment Kafountine nu muy agrandir sax. moom vraiment c'est comme toutes les villes du monde ah mm -hmm. ça s'agrandit d'une allure boo xamee ne euh, galopante c'est mhm. extraordinaire et y a pas amul infrastructure yoo xamee ne yu fa mën a toog ñu mën a saytu surtout li ma la waxee insécurité bi en son temps il y avait un poste de gendarmerie mhm. par la suite def nañ ko léegi tuddee nañ ko ñu ne brigade la mhm. mais brigade il faut nga am ay ay ay moyens et moyens humains donc il faut ñu yokk aussi l'effectif mais est-ce que léegi yéen a ngi ci dox ak nguur gi ministère de l'intérieur ba xam na yéen yow nga eh, ñi nga xamante ni ñooy ci ñi mu war a yegg mooy autorités yi ngir ñu mën a saafara lu ni mel loolu laay wax nee naa la pouvoir bi dem mhm. ñoom boo demee def journal des des des auditions yoo xamee ne répertoire li ñuy wax à assemblée nationale di nga ko fa dégg la ma mhm. wax ci les différents ministres de l'intérieur mhm. ne dañoo war a yokk effectif voilà léegi yàlla def na érigé nañ ko en poste de gendarmerie Ah, am nañu yaakaar ne avec le président Bassirou Diomaye gën Faye ñu yokkal effectif yu ñu soxla au niveau de Kafountine parce que xam nga état quand il y a moins d'état ça amène mooy li ñuy vivre actuellement mm-hmm. mais quand oui, l'état est... présent ku nekk dinga bàyyi sa xel ci sa morom mm-hmm. voilà mais je vous dis qu'à Kafountine il faut faire le déplacement nga dem foofu gis la fa ne ci nit da ngay jaaxle sax da yéemu ci yàlla. waaye ña ña ña fare ba dëkk boobu moom euh, dëgg la ñu ngi xaar état ci yu bari waaye mobilisation tas lu ñu des ginnaaw ndaxte euh, gannaaw agression yi ñoom da booloo nañu di yuuxu maanaam ngir seen kàddu mën a yegg ci ñenn ci ñi nga xamante ne ñooy nguur gi. waaw parce que mobilisation boobu dépassé na sax. Kafountine mhm. dépassé na la région naturelle de la Casamance nit ñi jigéen ñi jóge nañ fi Ndakaaru jóge Thiès dem jàppale leen ci ci ci ci ci loolu. parce que lii vraiment lu ñu war a naqarlu lu ñu war a métitlu donc loolu vraiment jigéen ñi porté nañu sa combat am na am na am na solo. Euh, leneen li mhm. euh, mooy wax naa ko sànq député nga ca assemblée nationale ab euh, réunion am na fa muy compte rendu réunion bi nan la duppee réunion bi mooy président des groupes parlementaires bi nga xamante ni dajaloon nañu waxtaanee maanaam mbirum parlement beeg ak DPG beeg yooyu lan lañ mën a jàpp ni moo dukkee ci réunion boobu. moom sama président moo ma baaxee parce que dama ko doon laaj. Mhm. sànq dañu daje assemblée. mu ne ma dafa jóge réunion bureau du président de de l' assemblée nationale ma ne ko lu xew mu ne ma dañu fixer rendez-vous dans la semaine prochaine les différents présidents de groupe parlementaire dañuy ñëwaat waxtaan seetuwaat seet yan article la ñu yokkaat ci biir règlement intérieur seet noonu lañ koy ñoŋaleet ñoŋalaat daal. Mhm. comme ça ñu mën a wootee session spéciale. Mhm. Euh, extraordinaire tëggaat beneen réglement intérieur avant DPG bi. kon jàpp nga ne yëf yi dina dina am. ak dal ah, am naa am naa ci yaakaar. am naa ci yaakaar dès l'instant que ñoom dem nañu ba toog waxtaan. Mhm. am naa yaakaar ne yëf yi dina dem ci dal quoi incha allah. waaw donc daal crise bi dinañ ko dinañ ko rek waa crise bi nañ ko régler bu soobee suñu borom. loolu am na solo député nga waaye barki dem gis nañ njiitu réew mi eh, jàkkaarloo taskatu xibaar yi. Euh, doon waxtaan ak ñoom waxtaan ak sénégalais yi mu nekk lu njëkk ci gannaaw téeméeri fan yoo xam ne def na ko ci bopp nguur gi ban jàngat nga ci am. ah li ma ci jàngat mooy président la boo xamee ne njàng bi gaaw na lool. Mhm. waaw ci man daal. vraiment njàng bi. Mhm. ja gaaw na lool parce que je me dis que quand même koo xamee ne mën nañu am yaakaar. vraiment ne incha allah rabi fa ñu bëgg yëf yi dem dana dana fa yeggee. parce que mel na koo xam ne dafa maîtriser dossier yi. Mhm. loolu la ma neex la vraiment ci moom. Mhm. vraiment mbirum loo xam ne dañ koy waxtaanee toujours ci assemblée moom mooy finance publique yeeg fonds politique yeeg yooyu ban lim ci yëy yàbb yi ban jàngan nga ci am. bon man nee naa leen euh, man man de sama sama xalaatu bopp la. Mhm. man dama ne fonds fonds fonds bi nga xam ne dañ ko alloué au président de la république. fonds boobu dafa war a jéem a seet nuñ koy contrôler mhm. mais fonds boobu dafa war a tege mhm. parce que mën na servir à beaucoup de choses mhm. waaw am na am na solo ñu delluwaat ca Casamance jàmmi Casamance yi tamit bokk na ci politique nguur gi fi jógee nguur gi nga xam ne moo fi ñëw euh, loolu it yéen yan jéego ngeen ci def surtout yow mi nga xam ne parlementaire nga. waaw jàmmi Casamance moom li ñu soxal la te comme li ma ko waxee jigéen ñi elles ont toujours été à l'avant mhm. jigéen ñi toujours ñoon mës a jiitu. Mhm. waa ci ci ci kii yëpp bañ nañ ko on a une plateforme de la paix pour la paix en Casamance. Mhm. donc plateforme baa ngi ciy liggéey. élu yi tamit ñoo ngi ciy liggéey. te am nañu yaakaar ne. foo xamante ne sooxe nan fa danañ fexe ba yëf yi gën a yemb incha allahu rabi parce que comme on dit expérience tamit day servir ci lu bëri. fan la fan la fan la toll nii jamono ji boo ko doon xayma di nga gis ni yëf yi am na ak yokkute am na ay jéego yu mag a mag yoo xam ni eh, surtout jigéen ñi nga waxoon ne lu ne seen loxo il faut mu dugg ci ngir mën a yëf yi gën a mën a yong boo ko doon xayma fi mu ne nii ci lan la toll. non ba ma moo koy xam xayma de dinaa ne sori na. Mhm. dinaa ne sori na parce que am na ay béréb yoo xamante buñ fa daan dem. Mhm. doon waaye fu mu nekk nii ah. gaa yaa ñ fay dem. Mhm. te jigéen ñi fa ne elles sont dañu actives. Mhm. créer seen i GIE. Mhm. ñuy dem di góorgóorlu. ah di daan seen doole. donc ma je me dis vraiment jéego yu bëri posé nañ ko te am naa ci yaakaar ne dina jëm kanam. parce que gouverneur bi fa mujjee nekk kooku tamit il ku ñu war a rafetlu vraiment yàgg na fa. Ah, mais macha allah il a fait du bon travail dans la région naturelle de Ziguinchor. Mhm. parce que fi nga xamee nit ñi dañ fa daan ragal dem. Mhm. moom lañ daan invité muy dem. Mhm. léegi ba mu daan wax naan ah man mi séeréer bi day bu ma demee buñ ma reyee ma des fa. <laughs> voilà donc vraiment kooku moom mën ñu mën mën ñu ko fàtte. donc pour diir dire qu'aujourd'hui man de foog naa ne li ci des de warta bëri. et à ce niveau là. dama newoon euh, dans un meeting qu'on avait fait à nu mu euh, bu yàggul noonu. Mhm. dans le département. Mhm. ma ne leen tamit nanu gëstu l'arrière pays. Mhm. waaw nee nu gëstu l'arrière pays parce que y tout un arrondissement boo xam ne tali amu fa. et c'est un arrondissement qui a plus d'une centaine de villages. dégg côté boobu sa longe pratiquement la la frontière gambienne. bu yàggul on a fait un atelier au Cap Skirring. avec les gouverneurs de Ziguinchor et de Sédhiou. Mmh. concernant les nu mu tëddi les les kii frontalières. Village. voilà frontalier ak yooyu. donc yooyu itam ñu ñuy xaar au niveau de l'Assemblée nationale euh, liñ ci wax liñ ci waxtaan yépp. bu ñëwee la commission des affaires étrangères nañ ko saytu. Mhm. ba seet nañ leen ci interpeller jàppale président. Mhm. de ce fait ñu jéem a seetaat ñun suñu borne frontière yi nan lañ ko rëddee. Mhm. depuis l' indépendance ak li ci li ci li ci yàqu ci diggante bi. parce que yaa a des problèmes. surtout dans mon département de Bignona problème yi bëri nañ trop. voilà bëri nañ trop te il faut ñu régler ko. am na solo tey jii di Soir d'info ñu dalal kii di docteur Gnimagou Diaby nekk député premier vice président bu conseil départemental bu Bignona nekk pharmacienne moom tamit ñëw waxtaanee jigéenu ak Bignona li ko wër yëpp ak Casamance mais surtout jafe-jafe yi nga xam ne jigéenu Bigno euh, Kafountine fan yi ñu ngi ko doon dund ci mbirum insécurité euh, mu def ci ab tënk waaye ñëwaat ci taxawaayu jigéen ñi sànq yaa ngi doon wax seen voilà maa ngi la doon wax ne y a une mobilisation actuellement. Mm-hmm. bi bi bi nga xamee ne c'est les neuf départements de la région naturelle de la Casamance. Mm-hmm. muy la région de Ziguinchor région de colda mm-hmm. et région de Sédhiou. organisation boobu c'est un projet projet bi ñu naan aw sofa may aw sofa may mooy prends soin prends sofa may donc ce projet là vise à planter des palmiers. Mhm. et palmiers muy lon arbre boo xam ne culte ça représente un arbre de culte en Casamance un arbre de culture. Mhm. muy palmier boobu bi nga xamee ne une femme da ngay parrainer une femme trois palmiers. Mhm. une femme trois palmiers permettra à cette femme là d'avoir un revenu de deux cent mille francs par an par an. si on passe à la phase d'industrialisation sa nu mu tëdd sa revenu va être multiplié par trois mille cent mille francs mhm. parce que day am le palmier et ses Dérivé. à ce moment là di wax ne pour pour ce projet là euh, déjà que on a la journée de l'arbre qui mhm. est le trois et le 4 ci mhm. lañ bëgg def lancement bi à Bessir Bessir 4 août. Mmh. de l'arbre. Okay. le 3 et 4 mhm. la commune de Kartiak dans le département de Bignona. Bignona. c'est pour rendre hommage à la femme qui était initiatrice de ce projet. Mmh. qui s'appelle Maïmouna Bodian. et ce jour-là, Inch'Allah, on va planter 55 plants mhm. qui vont marquer. son passage sur terre parce qu'elle est décédée. Mm. donc ñu bëgg koo rendre hommage à, à travers ce programme là. Mm. te ce reboisement là daf ñuy permettre ñun ñu ñu ñu ñu am jéego yoo xamee ne dañ koy def. Mm. par rapport au réchauffement climatique. surtout voilà loolu laa wax protection de l'environnement. voilà ak changement climatique. voilà am na am na ci voilà donc dañ koy jëmbat. et dans ce man on m'a donné euh, nu mu tëtti euh, le portage institutionnel. Mhm. c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale à commencer par le président. Mhm. bàyyiwuma ci kenn ñëpp laa nekk di sensibiliser pour ku nekk parrainé. Ah, pour ci nekk parrainé parce que nous on veut aller en parrainage de cent mille femmes fa la ñu bëgg a yóbbu yëf yi te boo parrainé. en ce moment là yow mii parrainé. Mhm. nga parrainé dans un village une femme X. dootul nekk X. dañuy xam ne yow yaa parrain parce que y aura une localisation. Ah. yow da ngay xam famille bi nga xamee ne. ci la sa sa don fa la jëm. ñoom tam ñu xam ne diw moo ñu jox lii ça crée lien et on a vraiment ay jéego ñu war a dóor ci cohésion nationale. am na solo ah. waxtaan bi waxtaan bi am na solo fàttali ne ñu ngi ak docteur Gnimaguou Diaby. Mm. ñu waxtaanee Casamance ak boori euh, Kafountine ak euh, Bignona ña fa nekk jigéen ñi seen taxawaay waaye li ñuy dund ci mbirum insécurité prétexte bi mooy bu yàggul dara gis nañu euh, jafe yi nga jigéenu euh, Kafountine yi dund nañ ko ci mbirum insécurité kooku euh, ki ñu njort ni mooy def lu ni mel sax teg nañ ko loxo. teg nañ ko loxo mu nekk nag loo xamante ni euh, xibaar bu baax la. waaw teg teg nañ ko loxo te tamit dafa disons que vraiment. Mhm. kenn ñaanewu ko noonu parce que bu ñu demee ba joxoñ koo xamee ne dëkkul ci dëkk bi. Mhm. ñu ne moo ko def. Mhm. donc y a un problème ñu njort ne moo ko def. ñu njort <laughs> loolu c'est ce que je dis présumé ñu njort ne moo ko def <laughs> il y a le, le problème qui se pose de contrôle des des des, des pièces d'identité mmh. également des cartes consulaires. loolu am na solo am na am na solo mais dinaa la delluwaat ca ca assemblée comme que député nga. Mhm. Euh, DPG bi mooy déclaration politique générale. waaw euh, waaw yéen euh, naka ngeen ko gisee xalaat yeeg ak xalaatu njiitu jëwriñ ji nga xamante ni ñi ngi xaar mu def déclaration de politique générale. moom dana ñëw moom neewul ne du ñëw de. nee na naa ñëw waaye dugal leen seen règlement donc dinañ ko mise à jour moom nga gis ni dinañ ko mise dinañ ko mise à jour bi ñu ko defee rek moom il vient ok waaw te ñun tam moom la ñuy xaar ah. waaw ah, moom la ñuy xaar ñu xam comment nu nuy liggéeyee ah. voilà parce que jusqu'à présent xamaguñu parce que il faut mu ñëw def DPGM mm-hmm. après ces ministres sectoriels ñëw commencé ñëpp commencé ñëw ñëpp commencé ñu ci mel ni jafe-jafe waa Kafountine voilà ñëpp voilà voilà c'est ça ministre bi yor wàllum euh, sécurité ah, eh, intérieur dina ñëw dina ñëw ak ñeneen ñi am na am na solo waxtaan bi am na solo xam naa ni li ñu dese ci waxtu bariwul mm-hmm. euh, mais sànq yaa ngi doon wax taxawaayu jigéen ñi bëggoon naa ñu ñëw it ci seen kom yaa ngi wax ñi ngi liggéey ñi ngi créer ay GIE parce que am na yeneen yoon yi nga xamante ni jigéen ñi def nañ ko fa comme association di xool loo xamante ni la mën a gën a soqali seen euh, taxawaay ci gox yooyu. tout à fait. Mhm. parce que comme li ma la waxee y a des unités de transformation. Mhm. waaw yoo xam ne jigéen yi def nañ ko mais des na mais je me dis aujourd'hui que am nañ pàcc bu rëy boo xam ne war nañ ko jouer dans l'autosuffisance alimentaire et également on parle actuellement de souveraineté économique. économique. voilà am nañ ci pàcc bu rëy boo xam ne Casamance war na ci liggéey. Mhm. chaîne des valeurs parce que boo seetee produit brut yi la ñuy la ñuy importer mm. alors que dañu waroon dóor un contenu local à ce niveau là bu ñu defoon contenu local comme des des des pays comme le Ghana mm. danañ am ñoo xamee dinañ ci liggéey te Sénégal dina ci am koom-koom ku wax Casamance wax mbay waaw mbayum ceeb ak ak yeneen yoo xamante ni tout à fait ñu bari njort nañ ne war euh, ci région yi fii ci Dakar fii ci Sénégal ci Sénégal gis nañ euh, jëwriñ bi yor wàllu mbay mi mhm. jéego yi nga xam ne mi ngi koy def waaye ba mhm. xam nax yéen mhm. euh, yéen a ngi won solution wala yoon boo xamante ni jëwriñ bi bu fa jaaree actuellement même les maires parce que ñun ci ñun ci ñun on avait déjà commencé l'intercommunalité il y a des communes qui sont mises en intercommunalité te actuellement ñuy calculer ay coopératives yoo xam ne day nekk ay hectares yu yu bëri. Mhm. comme ça nit ñi mën a béy lanu soxla ñu mën ko am. Mhm. incha allah am na solo waxtu wi waxtu wi dab nañu. Mhm. Eh, jaajëfal la bu baax ci waxtaan bi nga xam ne séq nañ ko ak yow docteur Gnima Goudiaby. bëgg naa ñu wax ci waxtaanee wér-gu-yaram tuuti. waaw ci réew mi comme que pharmacienne. waaw day man kay pharmacienne laa et je dis. aujourd'hui la souveraineté pharmaceutique mooy mooy tax Sénégal développé ah. c'est pas les mines c'est pas le pétrole ah. waaw c'est la souveraineté pharmaceutique parce que on perd 400 milliards yoo xam ne chaque fois gouverne dañ koy dañ koy jéegaani pour pour garab yi mën a dugg si xaalis boobu bu ñu ko fi tegoon dana dana doon loo xamee ni créer suñu usine xale yi mën a liggéey industrie bu yéeme la de bu yéeme la et un projet qui est là mm-hmm. projet boobu nag ñun nee nañ DPG bu PM ñëwee danañ ko danañ ko yeggee yeggee waaw am na solo ñi nuyu waa Ziguinchor bari nañu lool ñuy suivre télévision Futur Média waa Bignona ak jàpp Kafountine ak yeneen i gox-goxaan foofu ca Casamance jaajëfal leen tey jii euh, seen député bi di Gnimagou Diaby la ñu invité woon suñu député bi di ñi Gnimagou Diaby docteur Gnimagou Diaby nekk euh, vice euh, vice président bu conseil départemental bu Bignona nekk koo xamante ni xam-xam ma ci wàllum pharmacie moom laa leen wax waxtaan ak moom léegi moom la doon tëjee jaajëfal nañ la ñu bàyyi la rek nga tëj tàggatoo waa Ziguinchor ak it tamit waa Kafountine maa ngi tàggatoo ak waa département de Bignona mhm. euh, di leen di souhaiter vraiment euh, une très bonne fête de Tamxarit mhm. vraiment une très bonne année mhm. nga may ma aussi ma nuyu euh, sama dëkkandoo yi fi sama pharmacie nekk à Diamaguène Sicap Mbao ah. mais nuyu aussi sama dëkkandoo yi à la Liberté 5 mi nga xam fa laa dëkk donc waa ñëpp daal laay nuyu daal vraiment maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp une bonne fête de Tamxarit mhm. di ñaan vraiment euh, une très bonne année te yàlla may ñu jàmm ci réew mi parce que jàmm ci la lépp bu gujaa bi ñan ñooy sa bu gujaa bi kii Mané ak Koli ah. ñooy ñooy ñooy samay kal kon waa Mané yi ñoo leen ngeen summi ko fi ne nii ndey xam naa ne sa xelam yëpp a ngi ci cere bi cere bi <laughs> docteur jaajëfal nañ la jaajëfal téléspectateur du télévision Futur Média les suite ñëw yaatal xibaaru marax yi ñu euh, ñëw gën ko yaatal ci kàllaamay wolof jëfal nañ leen